judiciaire bi. Hmm. est-ce que yaa ngi xaar ministre de la justice ci réforme judiciaire bu nga xamante ni wax est-ce que tey sénégalais yi mën nañ ci am lu nga xamante sen xel dina dal ci par rapport ak euh situation yi nga xamantene tay tey euh, passé na fii nii jotoon nañ ko gis. Mm, mm. mu nek ben euh, dialogue national boo xam ni itam gasama ñu koy xaal ni ki li nga xam ne mu di le 28 mai 2024 mu seen yéene daal di war a mën dérouler exactement li nga xam ne mu di l' ensemble par rapport ak yene si ay réformes yi nga xam ne donc daal di war a mën a initié ak wàllu yoonal euh, Bassirou Diomaye Diakhar bo batay mi ngi insisté si benn mot muy transparence exactement c'est important parce que gestion bi dafa wara transparente et que képp ku ci Sénégal daal di war a gis sa bop ci yone ak wal yone parce que à un moment donné on a assisté si Sénégal bo xamni dafa euh, a li nga que exactement beaucoup de choses ont fi entre euh, procès de euh, tantôt mom ak tantôt aussi les agents judiciaires de l'État, tout le temps dañuy gis ni day am benn bu am ak Ismaël Madior Fall interprété ni pas Moussa Sow interprété ni euh, Sidi Alpha mu interprété ni étant et étant d'autres et d'autres et je pense que il faut aujourd'hui ñu am benn unique yoon bien exactement euh, waruñu nous ko interpréter selon une position euh, la loi elle est unique la justice elle est là et il est impartial exactement donc euh, Diomaye dina xamni itam djelnoko allant dans sens pour daal di koy war a mën a defa nii ñu daal di war réformer li nga xam ne moo di justice ay réforme euh, si walu wunu mel parce que jamono ji garde garde à vue bëri un deux trois euh, le juge Mamadou Seck am na sax ñu koy <laughs> mandat dépôt garage et tant et tant d'autres <laughs> ah donc il faut aujourd'hui ñu xalaat exactement suñu doxalin euh, est-ce que Arfan wala kon est-ce que Gassama euh, day jël ginaar bu jël deux mille cinq cent mu tëj ko fa deux ans gis benn faal bu sàcc ay milliards mu am fa benn fan exactement <laughs> loolu tamit euh, il faut ñu daal di gën a mën n'a doxal li nga équité du aujourd'hui cette gestion transparente de ki nga xam nekk moo di Bassirou Diomaye Diakhar en tout cas mu nekk loo xam ne itam ñoom annoncé déjà les couleurs à travers une cérémonie jubbanti bi nga xam itam doon nañ ko amal

Euh, rassuré woon allant dans sens par rapport ak wàllu wul je pense que ay réformes qui ñuy xaar la <coughs> ay réformes qui xam ni itam sénégalais amana nañ saa dañ si mën a gis seen boobu bu baax a mais ñaar dafa am le euh, conseil supérieur euh, de la magistrature est-ce que batay tey Diomaye ko jité wala ko dina si retiré wu exactement c'est la question qu'on va se poser alors est-ce que su retiré wu du nek ci ben république de magistrats est-ce que c'est su ko jiitee duñu né président batay mi ngi am ndogal si ak wàllu yonal que ni

soit dañuy assister ci benn régi euh, benn république de magistrat wala ko ñu assister rek si régime boo xam ni itam amaana ni suñu jàppee benn ba caxate dina am ñu génn que ni euh, waa gouvernement bi moo nekk si ginnaaw parce que dañuy bañ opposition. est-ce que pour l'indépendance de la justice boobu noonu fa laa bëgg a ñëw exactement ça mm-hmm. est-ce que tey jotul euh, conseil supérieur de la magistrature ñoom mii sax ñi jël seen propre engagement seen propre responsabilité bu xamante ne ni d'habitude parce parce que d'habitude chaque fois dañu koy wax lu ñuy jàng la séparation des pouvoirs les mais, est-ce que séparation des pouvoirs boobu noonu réforme pour nous réussir est-ce que euh, président de la république nous jël réforme bi moom mu gënee ci conseil supérieur de la magistrature comme nous mu ko waxee ci programme euh, avant muy dem élection mm. pour ñu nous réussir ku nekk mu mën exprimer librement lu nga xamante ne gis gis na ci doxinu réew alors mais su su génnee boppam euh, gasama sànq maa ngi ko doon wax exactement ñaaree am mu nekk si wàllum génne boppam te te nag su si génne boppam am na ñoo xamni tam itam jàpp neen dina nekk république euh, des magistrats est-ce que pouvoir du président du am lu ko touti parce que hein, euh, fii président yi dañoo am benn hyper présidentiel quoi qu'on puisse sur euh, dañoo bari ay pouvoir fi ci Afrique exactement wëngal kep donc président bi peut-être à part peut-être nomination yoo xam ni mu koy am.

Khalifa Sall ba tey euh, gars yi commencé am li nga euh, ay doute par rapport ak euh, l'efficacité par rapport à la transparence de notre justice sénégalaise quoi qu'on puisse dire Gassama waaw oh, fallu démb sortie bu ministre de la justice garde des Sceaux Oumar Diagne na sax le gouvernement est très en avance dans les rédactions du texte sur les lanceurs d'alerte tey jii nii moom dëmb waxoon na ko gënoon na def benn sortie bu nga xamante ne nii nee na ñoom rédigé nañ ay texte bu nga xamante ne war nañ ko jébbal président de la république Bassirou Diomaye Faye moom mooy xool ndax dina ko apprécier. Hmm. Hmm. tey jii nii yow est-ce que ban jàngat nga ci am ci euh, dëmb discours am boobu noonu. alors euh, je peux dire que ni dafa nekkoon loo xam ne ñu parce que euh, lanceur d'alerte, il commence commencé woon neen li nga xam ne lanceur d'alerte après nous avons exactement est ce que li des ces réseaux sociaux et lanceur d'alerte alerte pour saboter exactement ce projet pastif. Euh, les lanceurs d'alerte euh, nous kuréel mooy euh, clamé bolé suma gisé ni kasama mi ngi yor lo xamni tam liguey may ko wala kon mi ngi dugg ma dem ko ak wala même su nekké du mun ci man du ma dara et tant d'autres et tant d'autres alors lanceur d'alerte dafa nek lo xamne dafa exactement surtout ñu ngi parce que nit ki les euh, ñi yor ay milliards yi soo leen bëggee exactement donc mu nekkoon loi boo xam ne itam ñu bëri ñu koy xaarane parce que déjà affaire yi commencé woon na di def réseau euh, boom si réseaux sociaux yi que tout le monde en a parlé euh, par rapport yenn si ay caméra yi nga xam ne itam ñu ko doon jël yenn si ay këru kilifa fii Sénégal exactement donc mu nekkoon une attente de taille. Ce côté li nga xam dit que à l'annonce justement de Ousmane Diagne allant dans sens peut-être euh, di dalal par rapport ak dit de euh, loi si c'est lance direct, dit que protéger parce que que bi du ñak ni en tant que journaliste d'investigation amna ko dit bëgg nga ko clamer ci kanam yon ak wala yonal way lan protéger exactement comme ni ko euh, le soir justement du 3 avril Fall aussi la même chose et que et donc aujourd'hui

<laughs> falaa boo ñëw sax di rebondir foofu noonu est-ce que tey jii ah. nii loi boobu bu ñu ko yóbbee assemblée nationale loi boobu dina jàll